ci yéenekaay yi dañ koy daal di doo rekk rek Walf Quotidien mi def ci xëtam bu njëkk nataalu kile di Ousmane Sonko ak Macky Sall di wax rek euh, ci ne daanaka ci pàcc bu mujj lañu nekk ci euh, mortal combat euh, di kàddu bu kile di Ousmane Sonko yëkkati woon waaye it Walf Quotidien ñëw na it ci wàllug yokkuteeg facture courant yi te ñi di wane nag nataalu kile di njiital Senelec ñuy xamle ne mënees na ci xaar ak ak wàññeeku ci euh, lu ni mel Walf Quotidien ñëw na it tamit ci ndajeem bi euh, ñi nga xam ne ni ñooy waa société civile amoon ni kii démb ngir rek laaj euh, ñu daal di bàyyi ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy woowee ay détenus politique dañuy dem ci beneen ak xibaax wala ci beneen ak journal di las ñoom it ñëwaat nañ ci seen xët bu njëkk ci lu jëm ci wàllug ndaje bi société civile amaloon démb ñu ne nag teewlu nañ ci société civile civile mbokk ñi nga xamante ne bi euh, ñoom la ñu teg loxo te ñeen jàppee ay détenus politique waaye it sa jot na daal di ñëw euh, ci euh, li jëm ci wàll lëkkaloo bi am ci réewum France ak Sénégal le verdict news moom it ci xatam bu njëkk ñëw na ci Ousmane Sonko mu def nag Ousmane Sonko muy ab cas bu spécial rawatina nag ci lu jëm ci wàll ak yenn ci ay données personnelles lu ko soxal lu ñu ne la ñu daal di génnee eh, ci mbedd bi eh, loo xamante ne bi dafa aju ci wàllug wér gi yaramam leneen muy 24 eh, heures moom it ñëw na ci xëtam bu njëkk ci ndaje bi amoon ni ki démb di dox ak tendeefalu ñaxtu bu société civile bi amaloon mu ne nag manifestation boo xamante ne bi la ak njàppandal la ñuy indi ci Ousmane Sonko leneen muy Sud Quotidien ñoom it ci seen xët bu njëkk ñëw nag ñoom ci coowal euh, université Cheikh Anta Diop ak njàng mi nga xamante ne bii fi mu toll ni tembe dafa taga tembe tax sax ndongo yi ñoom it euh, di laaj ngir ñu ubbi seen ak euh, campus le quotidien ñoom dañoo ñëw ba tey ci la xew ca université Cheikh Anta Diop ñoom nag ñuy wax ne dañ fa nemmeeku police ci campus sociale boobule ah, te it dañoo dal di wàññi ñi nga xamante ne mooy étudiant ya fa war nekk jëlee ko ci téeméer euh, jàpp euh, juróom-ñaar fukk ci ay euh, étudiants waaye it le quotidien ñëw na tamit ci li nga xam ne mooy ndaje bi amoon ni ki démb mu jàpp ne rek kii di Ousmane Sonko moom moo ca gën a fes donte nekku fa ca l'info ñoom ñu ngi def ñoom seen xët bu njëkk ci lu jëm ci ni ki démb it tamit nga xam ne ni ndaje bi ñu nemmeeku waa société civile ak yenn ci ay politiciens daal di amal ngir ñu daal di bàyyi ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ñuy woowee ay détenus euh, politiques source a moom ñëw euh, ci xëtam bu njëkk ci euh, daal di wane nag nataalu kile di Momar Ndaw di njiital kuréel bi ëmb waaye jëfandikoo yi file ci Sénégal mu am nag lu bari lu mu dénk suñu naataango yooyu lay yéenekaay Le Soleil moom dafa ñëw ci lëkkaloo bu am ci diggante réewum France ak Sénégal wane ci nataalu ki nga xamante ne bi mooy Emmanuel Macron ak kileet yi njiitu réew mi Macky Sall muy ak ndaje boo xamante ne bi nee nañ moom la ñaari njiitu réew yi daal di amal ñuul daal di dem ci yéenekaay yëngu ci wàll tàggat yaram stade yéenekaay moom nag jot na daal di def ci xëtam bu njëkk li nga xamante ne bi mooy match yi ñuy xaar euh, ci weekend bi rawatina it yenn ay gaynde Sénégal yu si mel ni Sadio maaneek ak euh, ñeneen ña euh, ci yenn jongante yu ñu war a amal nit ki weekend bi ni sunu làmb moom nag di ñëw rek ci li nga xamante ne bi mooy combat bi war a am ci diggante Modou Lo ak it Ama ñoom nag jot nañ ci ñëw ak fésal nataalu yeneen i mbër yoo xamante ne bi fi mu toll ni eh, ñu ngi xaar seeni ay komba eh, ci dimanche gi wante tamit ci niki samedi gi lii mooy li fi gënoon fés ci xibaar yi xibaar yi buur na di tàggatoo di jaajëfal Famara Diédhiou bi nekkoon ci eh, technique bi jaajëfal rédaction bi togg xibaar yi ba mu ñor jox ñu ko ñu yàq di leen jaajëfal ci seen teewloog Walfadjri leeru jamono